bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wattamkin wa radiyallahu taala an xadimihi alamin itibaihi ajmain ashaab alsamaha ممثل القيادات الدينية في البلاد أصحاب السيادة أصحاب السعادة سفراء الدول الإسلامية والصديقة وممثليها أصحاب الفضيلة قادة التاريخة وشيوخها أصحاب السيادة إخوة الإيمان والإرادة asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa baad fa yusaiduni an amthula amaamakum bi amrin min fadilati cheikh sidi lmuxtar alxalifati alaam lilmuridin xafizahu llahu wa saada min nasrihi wa tawfiqihi muraxiban bikum bismi samaxatihi fi haasihi almadinati tuuba almaxruusa التي تتشرف مجددا بما عودتموها من حضور شنوي ومشاركة إيجابية في فعاليات الاحتفال بالمجل التي نحلل بها ذكرى بداية المحنة البحرية الحديمية التي حولها صمود صاحبها وحسن تحمله وقوة إيمانه إلى منح ربانية ومواهب إلهية استحقت أن يشكر بها المنعم شكرا يليق بمقامه الصامي وبإنعامه الوافي الذي أفاد منه الداني والقاسي الأمر الذي كان السبب في قيام الشيخ الخديم بإعلان هذا التاريخ الثامن عشر من صفر yowma shukrin lil mawla jalla wa ala wa tajaawabu mahu fihi ijabiyan al ahlu wal atbaa wal ashdiqaau fi xayaatihi wa baqu baadahu ala al haadi fi ixyaaihi ila al aan xaytu naxtafilu al yowma bil mawsimi thalisi wa tis'iin wa qad shaaraka fihi ma yaziidu ala arbaati malaayin قدموا من أنحاء مختلفة داخل السنغال وخارجها وقد ضحوا بكثير مما عندهم من الوقت والمال الغاليين طلبية لدعوة الخليفة الشيخ سيدي المختار التي يشكرها لكم جميعا ويدعو لكم بالتوفيق لما يحب الله ويرضى asalaamualeykum bokki jullit yi bokki réew mi bokki taalibe maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di leen dalal jàmm di leen sant di leen gërëm ci Touba ci turu sëriñ bi fii ci Touba ngir bokk ak noonu màggal gii nu dundal ngir jëfe ndigal lu sëriñ Touba joxoon nee na ko ci ñépp sant la yàlla kon ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar ci ndigalul jëwriñam ji di Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne boo xasee boo wax rek képp kuy bokk ci Serigne Touba ak képp kuy yaakaar Serigne Touba moom la sëriñ bi def def ko muy jëwriñ ci yoon wi boo xasee boo wax rek ñëpp tàbbi nañ ci biir waxaale na tur yoon yëpp. kon bis bii nag di juróom ñeent fukkeel bi ak ñett boo ko Serigne Touba diglee ak tey ndax màggal gi 1895. ci la ko ci la fi Serigne Touba bàyyi ko woon mille neuf cent vingt six wala lu ko jiitu ci la ko mille neuf cent vingt et un ci la ko Cheikhul Khadim digle ci njaareem mille neuf cent quarante sept wala quarante six quarante sept wala quarante huit ci la ko Cheikh Mouhamadou Fall toxal si fii ci Touba kon Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Mokhtar woote woon kon ni ko kilifaam yi jiitu daan wootee ngeen wuy si ko wuy si wuy sin war rafet bii nee na mi ngi leen di ci sant bu baax leen ñaaral la fay leen ci ngeen ji faje te defal leen li mu diggee ci jokku bokk ak dundal ko ak sàmm wóolare ak matal ko cant gi nag mi ngi koy tàmbalee ci kër këri diine yi beral cant ak ngërëm ndax lépp lu muy def ñëw nuy bokk ko ak noonu bàyyi seen yitte ak seeni kër li muy xat-xat kenn ku ci ne sëriñ bi mu ngi lay yóbbante cant ak ngërëm ci ki nga fi teewal te yeesal kóllëre gi mu seq ak mboolem këri diine yi di ñaan yàlla sàmmal leen bokk lislaam gi leen boole ba ñu maase tënk ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu te mooy nu ànd gën a boolewaat sunu bopp ak sunu lépp daw mboolem lu nu maa teqale nee na mi ngi gërëm ñi fi teewal mbootaay lislaam yi di wax itam ne mboolem këri këri diine yi ci senegal yëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm ndax bi ko fi suñu borom tëjee mu wutu fi waay juróom yu tedd ba yu tedd ya ak magam ju tedd ja koori ga mu njëkk a fekke dafa wax woote na ko Serigne Touba di fi woon woote na ñëpp àndandoo nekk benn ñaana nag ni ngeen ko ci wuysee mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm te ñaan yàlla suñu borom fay leen ci ndax yéeg na ko bu baax nee na mi ngi sant tam di gërëm délégation bi fi teewal njiital réew mi président de la république Macky Sall ak njiital gouvernement bi Abdoul Aziz Mbaye te ki nekk ci bopp bi jiite ko di général Pathé Seck leen sant bu baax ci seen teewaay te mooy itam ñu koy berloog cantam moom Pathé Seck ci taxawaayam ak yitteem ak mboole ñëw ko àndal yëpp di leen yóbbante cant ak ngërëm ci président de la république ci taxawaayam yi nga xam ni jëwriñam yi mu joxoon ndigal taxaw ci yi gi na nag ci wàllu sécurité ak santé ak électricité ak hydraulique ak yeneen yi ci des def nañ ci sem kéemtalaay kattan neen mi ngi ñaan sunu borom li mu yéene def ci réew mi ci lu koy jëme kanam ak saafara li bëgg-bëgg nit yàlla dimbali ko ci di ko xamal ni itam yàlla sunu borom di dafa wax ci alxuraan wallaahu yuuti mulkahu man yasha nguur sunu borom a koy joxe doomu aadama yi carte yi ñuy wax yëpp nag ay sabab rek la ci kon nag képp koo xam ne yàlla suñu borom teg na la fi nga jiite ñëpp sëriñ Tuubaa daa wax naan yàlla suñu borom boo ko ñaanee la nga gën bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci neen na ñaar rek mën a am mooy boole leen tey ak boole wala nga boole leen sànni kon nag loolu ñu ngi ko koy fàttali xam ne. képp koo xam ne jiite nga la war a jiitu la ca la ngay def ni ku ko sëriñ bi waxoon mooy yërëm nit ñi ak fexe ba mën a muñ loolu nag suñ ba suñ benn ko ko fàttali ko ñaan itam yéen yi nga xam ne am na ko ci dëkk bi ci màggal gi loolu mu ci wax ak sànc yi nga xam ne fas na yéen tàmbali ko ci Tuubaa suñu borom mooy ko kattan ba lépp mu àggale ko ci jàmm ci barke suñu Tuubaa nee na yéen mi ngi nuyu membre corps diplomatique bi den sant ci seenu teewaay ak seenu taxawaay ci lépp luy rafetal diggante Sénégal ak seen réew yi ñu fi nekkal nee na it mi ngi sant yeneen formation politique yi fi teew yëpp ak mboolem société yi nga xam ne feeñal nañu seenu taxawaay ci màggat gi mi ngi sant bu baax itam média ak presse bi ci seen liggéey ci ak seen taxawaay ci màggat gi di jëmale nag cant ak ngërëm ci mboolem kilifa yoon yëpp te mooy ñi nga xam ne ñoo la bokk Serigne Touba di ay rakkam ak ci doomam ak ñi nga xam ne seen maam ya ñoo bokkoon ak Serigne Touba ak mboolem ñi nga xam ne ñooy seexi Serigne Touba lañ yoroon mu jox leen ko ak mboolem taalibe Serigne Touba bàyyiwu ci kenn nee na mi ngi leen sant bu baax te di leen gërëm ci seen jëf ak seen taxawaay bu rafet ci màggal gi ak li jiitu màggal gi ci lépp luy sagal ak jëme kanam yoon wi nee itam. bala ñoo dugg ci biir waxtaan wi mi ngi ñaanal mbokkam bu baax mi nga xam ne moo fi bàyyi ko woon di du Mouhamadou Mansour suñu borom dolli ko ay leeram bu baax te tabal ko àjjana waaye itam di ñaanal mbokki taalibi yi nga xam ne ñoo bàyyi woon bàyyi ko woon seeni kër ngir màggal si te am ci lu ma ñaar fukk ak nangam yoo xam ne faatu nañu mu di ci moom nee na mi ngi koy ñaanal ñoo ñëpp suñu borom yërëm leen te xaar leen àjjana te dajale leen ak sëriñ Tuubaa tañ rafet njootu seen bopp ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilallaahi wa rasulihi summa yudrikuhu l-mawtu faqad waqaa ajruhu kon na ñoom nañ jàpp ne seenu màggal nangu na ginnaaw bu loolu jàllee nag mi ngi dellu ci fàttalinu ak yeesal kàddu yi mu baaxoo jëmee ci noonu at mu nekk ci jataay bii mi ngi ko tënk nag ci ñetti tomb bu jëkk bi mi ngi ko jëmale ci ñu bokkal lislaam bu ñaareel ba ñu bokkal réew mi bu ñetteel ba ñu bokkal yoonu xaadimu rasul nee na mi ngi ñaan ñu bokkal diine lislaam rawatina kilifa yi jiite mboolo yi ñu gën a ànd takkuwaat boole seen bopp mu nekk benn bu ko defee ñu farlu bu baax ci lépp luy aar diine lislaam ci mboolem pexe ak pexe yu bon ak xeeti yàq yi nga xam ne ay noonam jug nañ di ko yëkkati waxtu ne di ko teg ci derab lislaam ngir yàq ab deram ak bëgg yàq pas-pasu jullit yi rawat na lu ñuy bind ak lu ñuy wax jëme ko ci jëmmi rasulullahi sallallahu mi ngi ñaanitam ñu gé jëm jëme waa suñu yëti yëpp ci dundalaat daara yi te jiital ci njàngalam lislaam moo ànd ak toqi ndaw ñi yar leen ci diine ak jikko yu baax ngir kiris bi jur mboolem kiris ak jafe-jafe yi am ci adduna bi mi ngi sababu ci jikko yàqu yi ak ginnaawal njàngaleem lislaam moo tax sunu borom wax ne zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi naas wa ma asaabakum min musibatin bima kasabat aydikum bu ñaareel ba mi ngi sàkk mboolem ñoo bokkal réew mi ñu jëme seen yitte ci luy saxal ak yokk jàmm ak dal ci réew mi te ñu wàññi coow li ak waxante lu ñaaw te farlu ca liggéey te moytu yàq ngir xam ne am réew la koy jëme kanam du coow lu bari du waxi kese waaye mooy liggéey tey jubal wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaytu la yahtasib tomb bu mujj bi rek mi ngi ko jëmale ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne digal ak tere la seq ñoom mi ngi tënk ci ñeent ponk yi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa fond yoon wi te moo di am njàngareem ci makaarimul axlaaq makaarim bu laax nag mooy li ñu tuddee moral ak tarbiya ak suluk ak manhajam ci tarbiya te mooy doxalin yu mu doon def lii lépp nag boo ko dajalee mooy lii defar doomu aadama ak ni nu war a tabaxee aw xeet wala ab société ci lislaam sëriñ bi nee na fii jamono toll njaboot gi ak diine ji ak réew mi ak xeet yu aaju woon a defaraat rawatina ak li aju ci jikko yi aw xeet nag su demee ba jaaxle daa war a delluwaat fa mu jigoon su su fekkee su bëggee jindeeku rawatina nag rawatina nag ku am ku mel ne nga xam ne dafa bàyyi xel ginnaawam lool ba tax mu faggul nu loo xam ne njaboot gi ak réew mi aaju woon nañu ko tey ci sunu jamono ji nga xam ne wuutewul ak jamono yi daa waral yàlla daa alak aw xeet ak yónni ñu mën a defaraat jamono jubbantiwaat doomu aadama yi xam ngeen ne mboolem xeet wu yàlla ma sa alak jikko yu yàqoo ko waral waaye xeet wu mës a jug ci taarix doomu aadama mbaamu mu naax saay jikkoo ko waral boroom xam-xam yépp nag maase nañ ci yonente bu yàlla ma a yónnee yitteem weesuutoon defaraat makaarimul axlaaq ak jubbantewaat aw xeetam lu jiit Sëriñ Tuubaa nag am na xalaatkat yu mag yoo xam ne jéem nañoo xalaat ci makaarimul axlaaq ngir leeral nunu mën a defar doomu aadama ak nunu war a tabaxe aw xeet wu mucc ayib ku mel ne borom xam bu ñuy wax Suqraat ak Aflaatoon ak lu jiit Seydina Isa ak ku mel ne Yaaqub ibnu ak ku mel ne Ibnu Sina ak ku mel ne Ghazali ak ku mel Mulla Ahmad ci réewum Hind waaye boo ko seetloo nga gis ne mboolem yonente yi jiitu rasulullahi sallallahu xalaatkat yu mag yooyu nu tudd kenn tabaxu ci xeet makaarimu axlaax yu mat sëkk tamatale loolu nag li ko waral moo di yonent yooyu yàlla fekkuñu xeet doomu aadama mat ñaareel ba moo di ulamaawul axlaaq yooyu nu tudd léegi tabax nañu naam nii nu war a defare nit ak melokaan yi aw xeet war a mel ngir mu mën a mat waaye ñoom ci seenu xel kese lañu ko tabax moo tax mënuñu ko jëmbal mataliwuñ makaarimul axlaaq ci kaw suuf ndax dañoo doyloo xalaatu kese te makaarimul axlaaq su àndut jëf wala mënee su ko jëfe du mën a mat waaye fekk na rasulullahi sallallahu alayhi wa leeral na bu yàgg ba mu nu waxee li waral yàlla yónni ko mu wax ne innama bu'istu li utammima makarim axlaq loolu moo loolu moo di mboolem ñi ko jiitu woon dañoo tabax makaarimul axlaq kem fa seenu xeet ak xeet doomu aadama toll woon ginnaaw nag moom bi mu dikkee daa fekk xeetu doomu aadama mat sëkk kon day jaadu mu martale mboolem lu xeetu doomu aadama aajowoo ci makaarimul axlaq waaye loolu itam day aajoo ku ko yeesal saa su ko jamono laajee te loolu moo di saa su doomu aadama demee ba fàtte li ko war digganteem ak boppam ak digganteem ak boroom ak digganteem ak ñi mu seqal adduna loolu moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee ci mujjug jamono dafa daal di laxasaay woote yoonu tërbiya ngir yeesalaat makaarimul axlaq tabaxaat doomu aadama ba mu melaat ni ko yàlla moole li ñuy déggee ci loolu moo doomu aadama Sëriñ Tuubaa daate la fàggu ni nu war a defare doomu aadama ba mu mën a mat li mu doon mën koo jëfe loolu moo waral mu gis ne doomu aadama kenn mënu koo defar fii xamoo ni ko yàlla binde ak ni mu ko moole loolu moo tabax loolu moo tax mu tabax am njàngaleem ci ay fondement yu dëppoog melokaan doomu aadama ndax yàlla dafa tabax doomu aadama ci ñeenti mool bu njëkk bi moo di xel bu ñaareel ba moo di xol bu ñetteel bi moo di yaram mu ñeenteel bi moo di kàttan ak sañsañ sañ wala sañ-sañ ak man-man moo tax mu wax ne day aajo nu yar xelam ak xolam ak cëram ak bakkanam ak bëgg-bëggam ndax doomu aadama yàlla du ko bind may ko xel mu mën a xam mën a settantal mën a ràññee lu baax ak lu bon boole ko mu am xol di yëg di bëgg di bañ su ko neexee mu bëgg lu baax ak lu neex bakkanam mbaa lu sedd xolam boole ci am kàttan gu mu mën a jëfe lu ko sóob ak sañ-sañu sañ tànn li ko neex ci diggante lu baax ak lu bon mu inna hadinaahu sabila imma shakiran wa imma kafuran bu ko neexee mu def lu ko neex bàyyi ay wërteefam wala mu def lu baax ku yàlla sunu borom binde nii nag ku ko yarul mu tëkk mu tukkal àdduna baa mu fu mu dëkk kenn du fa am jàmm moo war a Sëriñ Tuubaa gis ne doomu aadama dañu ko war juróom melokaan yi ko yàlla moole Sëriñ Tuubaa am njàngilem ci makaarim axlaax ak suluk ci fondement bu wér la ko tabax moo di almaarifatu at mooy lii dimbale doomu aadama ba mu mën a xam diggante lu baax ak lu bon ak lu ci nekk li koy waral boole ca nga xam bu baax li nga xam ne moo lay digal ak a fàttali lu baax fotol ak di la xam ne lu baax warteef la bàyyi lu ban warteef la woo xam ne war nga koo xam doonte kenn waxlu ko waalam bi ann al fikrata miratun liman amana birahmani ayfaan inna fikrata al fata turihi al xasanat mustabshiran kama turihi chiat loolu moo war a Sëriñ Tuubaa gis ne xel moo war a jiitu ci lu nu war a defar ndax mooy masdarul ilzami al xuluqi lii sa doomu aadama ak di ko fàttali sëriñ bi tënk na ko ci juróom juróom yëf bu njëkk bi moo di gëm yàlla al imaanu al quraan wa sunna ak li boroom xam-xam yi bokk ci jiwoo ne mooy al ijmaa ba ca mooy ab damir te mooy an nafsul lawaama bi dëkk ak yow guddi ak ba bëccëg di sa àndaloo foo mën a jëm ak foo mën a ne ba ca mooy xel ndax mooy leeral nit diggante lu baax ak lu bon ba ca des mooy alwaad wal waid wala attarxibu tarhib lii xemoom loo nit lu baax ak akati ak lu baax ak di ko tiital a xupp moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne min annaasi man lam yatawajjah ila llah bi nafsihi walam yuwajjih ilayhi ahlahu bal tawajjaha ila shahawatihi wa ahlihi fa lizalika qaala taala yawma yafirru lmaru min axiihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi moo tax baatub tarbiya sunu borom andi na ko lu bari ci alxuraan waaye foo ko mën a fekk ci alxuraan li muy firi moo di taskiyatu nafsi xad aflaha zakkaaha wa xad man dasaaha te moo di fóot bakkan laabal ko ci mboolem xeeti tilim ci biir ak ci biti ba noppi tàggat ko ci makaaribul axlaaq kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukum alkitaba wal hikmata ci loolu la sëriñ bi jëfandikoo baatub tarbiya chammir ila makarimi al axlaaqi xaalis al amali min annifaaqi fii nag li wutale sëriñ bi ak ña ko jiitu ñaar la bu njëkk bi moo di ulamaawul axlaaq ak yarkat yi ko jiitu woon danoo tënkoon ci tënku woon ci xelum kese wala bakkanu kese sëriñ bi moom daa gis ne xel jumtuwaay la booy jëfandikoo ngir xam li war ak li jaatu ak li baax ba mën koo xàjjale ak lu bon waaye mën nga koo xam te doo ko jëfe bakkan itam na ko noonu ndax xamul lu dul bànneex ak lu ko neex ñi jiitu woon sëriñ bi dañoo tënku woon ci yar jëmm ji kese sëriñ moom daa gis ne ni ñu ware yare doomu aadama ni lan waree jë yare jëfam nan lañu yare jëf wala nan lañu tërbiya nag su suloo ko doomu aadama mooy tat yërul iraada mooy laabal sa bëgg-bëgg ak sa posté raxas ko sellal ko ci lépp lu dul yàlla isil muridu laa yuridu abada xayra rahmaani xaysu qasada moo tax ab bi wóoru la bëgg dara lu ngër ngërëmul yàlla ak mu sëriñ bi ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi mi ngi dëggal mi ngi diggal ñi yilif njaboot gi ñu gën a farlu ci njàngum ndaw ñi ni mu ko waxee woon léegi ak seenub yar mi ngi diggal ndaw ndaw ñi tollu ci jàng ñu bañ am soxla ci lu dul li leen di may xam-xam akuk njub te wattandiku lépp lu leen di gàllankoor ak képp ku leen mën a gàllankoor yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil wajtanibu majalisa saqa li ñu fi indi te bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla gu dëppoog sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ci ngirum gaa yu baax yi ak roy seenu doxin moo tax sëriñ Tuubaa di wax ne ijtahidu yaa qawmi bil ilmi wal amali fi taati shafiha man yadlubu jan man talabal sunnati rasuli mutiyan laa yamil fi zahirin wa batin an sabil kon ñu ngi soññ taali moytandiku tere sunu borom bi te lu ci wa te lu ci waay réere bala koo mu dem laaji ko ñu xam fasalu ahli zikri in kuntum laa taalamun loolu mooy ci bi na Touba waree taxawal jumaay Touba te autorité autorité coloniale yi fi nekkoon bëgg bu ñu bëggoon a gàllankoor loola taxoon ñu wax ne ngir ñu jox ko autorisation faw mu dajale bu takku ci xaalis bu mën a financé liggéey bi mu soxla ngir entreprise tubaab bi ñu ko war a booleel ngir mu mën a def liggéey bi faw mu gis lu wér lu ko garanté bi ñu xamalee loolu sëriñ bi sëriñ bi ci la joxe ndigal bépp bi góor ak jigéen mag ak ndaw ku mën a joxe ci wërsëgam ñaar fukki daram ak juróom-ñett ca xaalis booba moo daal di woote dajale mbo ngir sant leen ci taxawaay boobu ñu am ci liggéey bi kàddu yi ndenkaan yii nag la Serigne Touba jëme woon ci moom ne fu waay ko fa yóbbaale ngir jottali ko ñu téew ngeen ko defit ab yóbbal bu faw ndenkaan la mooy lépp luy seen soxla ak lépp lu ngeen sémbu lu mel ne néegu yàlla bii ñu war a taxawal na ngeen sukkandiku ci seen bopp jël la ngeen am ak la ngeen man lépp def ko ci lu ngeen ëmbut ngeen laxasaayu dem wuti ko ci anam ku sell te fu seen man man yem ngeen toog xaar fa sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran mu ne tarikiwaay na ngeen moytu lépp ndimbal lu leen bàyyi ko faneen loo xam ne bu leen fajalee seen soxla itam daa leen xañ ngor wala jom tilimal seen diine ndax am na yetti yëf yoo xam ne yoo xam ne kat ku bëgg sàmm sa diine ak sa ngor boo leen amut war ngaa lax say wutu leen boo leen amee war ngaa moytu lépp lu la ko xañ ba jë ba ca jiitu mooy moom sa bopp ba ku yàlla sa borom du doo nangu mu moom la doo nongu yit mu not la ba di la jëmale fu ko soob te mooy li tubaab di wax liberté bu ñaari ba mooy la nga mënta ñàkk ngir faj say soxla ak def say bëgg-bëgg nga mën caa sukkandiku wala nga ci yaakaar ku yàlla ak sa jëfi bopp ak sa am amu bopp te mooy fexe ba mën a dem ak sa bopp mooy li ñuy tuddee indépendance ba ci des mooy ñàkk sa bopp ba ku la wër ta yàpp waru laa xamal du am ci yow aw yoon mboolem yett yi yëpp nag li jiitu ci li koy maye mooy mënal sa bopp li jiit ci li koy xañe mooy ñàkk mënal sa bopp ak wéer sa bopp ak weer sa bopp sa bopp ak say soxla ci doomu aadama yi kon fu ngeen nekk na ngeen fas jom te fexe ba mën a dem ak seen bopp ci lépp lu seen aajo ndax wax ne tubaab ñaari doxalin la ñuy doxale ak nit ñi bu ñu soxlaa ci yow dara benn ñu xupp la wala ñu xëpp la sëriñ bi wax nag ne yoon wii nu sëriñ Tuubaa da nag mboolem ñu tedd ñooñu fuuti ginnaaw ñëpp ci lañ jaaroon jaaree la ca itam mboolem ña topp ci seen ginaaw ba lépp lu ñu sëmb alale njabootu yoon yi moo ko tàmbali moo ko yeggale lu ñu ma la ñu mas a sukkandiku naka jekkit ba doon mën a dem ak seen bopp ci lépp lu ñu mas a sëmb moo di liggéey loolu moo tax li ñu toj ci ay àll sanj ko ci ay dëkk ngir jaamu yàlla ak liggéey ak jàngal ndaw ñi ak yar leen toll na ci juróomi téeméeri dëkk ak ñeent fukk ak ñaar yu ànd lu ëpp junni daari tarbiya ngir toqi ak tàgganti ndaw ñi ci jaamu yàlla ak liggéey ci biir loolu am na benn boroom xam-xam anglais bu ñuy wax Hubayriyan di ku ñu xam ci àdduna bépp wax na ne <clears throat> ci benn téeram ne li kilifa yoon wi ñoral ci atum 1958 ëpp na 50 pour cent ci li ñor ci mboolem réewum Sénégal naka noonu mboolem borom xam-xam yi bind ci xawaay yi njabootu yoon wi am ci liggéey nee nañu njàmbaar ak jom ga baykatu yoon yi am moom la ñu nekk ca taax yi di jaay ak jënd wala ñu yi métier di liggéey am ba fu ñu fu ñu nekk ci ña gën a ràññ ko la bokk muy loo xam ne lu ñëpp teg lu ñëpp teg seen bët la sëriñ bi wax nag ne. lool yi nag la bëgg ñëpp sax ci ba tax na mi ngi soññ kilifa yoon yëpp ak di leen jox ndigal ñu gën a fonkaat tool yi ak àll bi dundalaat baax bu baax barab yi kilifa yi sosoon ngir jaamu yàlla ak liggéey di digalit mboolem ndaw ñi nekk ci taax yi ku ci jàppul ci lu wér loo mën a la nga dellu ca àll ba jëm faa liggéey jëm te xaar fa yàlla te lu ñu am mu jëm ñoo doy bañ xaar ndimbalu kenn lii nag mooy yoon wi nu Sëriñ Tuubaa xalal mu dellu si tey ngir fàttali ko boppam ak mboolem taalibe yi ak njaboot gi nu bàyyi xel waxtu wu nekkit nag toolub Sëriñ Tuubaa di yoonu murit ñag bi koy sàmm di ko aar mooy nangoo am kilifa ak di diglu ndigal ak di ko jëfe kon nag fu nu mën a nekk nu maase ci sant yàlla ci tawfeex ak ndimbal li mu defal ba ñu ta def ñu ñu taalibe Sëriñ Tuubaa kon li muy jeexal nag mooy ñaari baat yow am solo ndax dañuy wax màggal Tuuba muy li ñuy wax ramziyatu samaani wal makaani symbolisme du temps ak et d'espace ñu jëkk ci baatu màggal li muy li muy symboliser di ko jëmbal mooy xayma ak jubluwaay yi nga xam ne moo taxoon sunu borom wàcce saraaya war risalaat wal adyaani kulliha te loolu mooy sellal al ubudiyyati lillahi wahdahu doona sharikan sellalu jaamu yàlla ak liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak nangu bu wér dogal ak sunu borom ak gërëm li sunu borom dogal ci yow ak muñ nattu sunu borom ak sant ay xéewali sunu borom ak jël léppam jox ko yàlla ak jihaad ci yoonu yàlla ngir yekkati kalimatullahi taala allazina uxrijo min diyaarihim bi xayri xaqin illa an yaqulu rabbuna allah Sëriñ Tuba tënk na ko nag ci ñaari bayit muy xarajtu yowma sabti rabiha asar li xidmati almuxtaari fi sahri safar ak asiru maa al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaaka asiru kon al ummatu islamiya bépp war naa def ci fàttalikoom ci génération yu jublu si ne màggal Tuba day fiir ne an nasru te mooy victoire mënta am te li ñu te muñ amut li ñu al fatxu mooy mooy mooy succès mënta am ginnaaw bu dul yàlla sunu borom nattoo teg la lu diis moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne qusuuri ya xallat wal ahlu an nii tafarraqat li matxi lazi anhu lmadihu qasiru kon màggal defut lu may saxal naka jëkk ni sunu borom daan doxale diggam ak yonente yàlla yi masu yónni ak wàllu yam yi nga xam daan leen jox ay daraja bal leen ko mas a jox moo tax suñu borom wax ci alxuraan ne am xasibtumu an tadxulu jannata wala maa yaatikum mathalu lasina xalaw min qablikum mashathum albachaau waddaraau wa zulzilu xata yaqulu rasul wallazina amanu maahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qaribun muy li ñu tënk ci anna ni'mata fii tayi niqma bala ngaa am xéwal fan suñ faw suñu borom nattu la te loolu mooy bis bi nga xam ne ci la ko génne ci ay këram ak alalam aku njabootam ak ci taalibeem ci lu dul dëkk dëgg genn dëgg na amuñ benn firde baddala laahu lahul usra yusra sëriñ Tuubaa soppi bis bi bisu mbégte mu bañ a doon bisum naqar mu nekk bisu mbégte ak ndamu lislaam ak jullit yëpp moo tax sunu borom jox ko maqaama moo xam ne ump na ku dul sunu borom moo tax mu wax ne xaaba maqaami an siwal baaxil xadim wa inna nii abdun xadimu layrim mu dellu waxaat ne inna allazi min al ilahi xusdu xaaba anil kawni wa fii fustu la nga xam ne suñu borom jox na ma ko mu jóge ci moom ump na ku dul moom képp kuy mbindeef rek ump na la kon li ñuy wax similoo juyati màggal ak i sekkerem ku ko tudd faw nga tudd Touba Touba nag day mashruuc idiwuloo si bu nituk yàlla jëmmal ba mu nekk jëmm ci barab bu ñu xam muy procès bu mu tëgg tuddle ko madlabul fawsayni bi maana mashruucul fawsayni fawsul insaani fi dunya wa fawsuhu fi laaxira bi addi nasari an tamawduihi fi itaari zamaani wal makaani innaha xaqan alkalimatu tayiba asluha thabitun wa faruha fi shama tuuti tuuti ukulaha kulla xiin bi ishni rabbiha wa yadribu llahu al amthala linnaasi laallahum yatafakkaruun loolu mooy tex ak adduna ak alaxira te loolu mooy li adduna sépp di wër mooy tex ak adduna ak alaxira te mooy benn dëkk boo xam ne message bi muy joxe mooy sellal ak xeetile adduna sëpp ci kiris bi ñuy wax al utruhatul gharbiyya fil hadasa te mooy doctrine modernité moo tax Tuubaa nañu melan duñ soppi ko wala ijtimaa yi ak psychologie wala awlama ak mondialisation wa ak occidentalisation yooyu yëpp suñ suñ Tuubaa musal nañu ci Sëriñ Tuubaa musal nañu ci loolu lépp nag andil na bees muy muy mashruu mat lawu faw sëni moo andi ak njub ak texe ak yaakaar ci adduna jëpp ak texe ak adduna ak alaxira mu wax ne li kulli man bi yataallaqa naja min kadari dunia wa fi yawmi naja bépp taalibe boo xam ne aju na ci woon bu ne suñ borom musal na ko ci nax naxi adduna ak naxi naxi alaxira taabusi taalluqin bi yesul bi jaahi man ilayhi wujjiha nusul coono képp ko aju ci woon ku ne suñ borom dindi na ko ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu muridin bi yaloosu yazadu wa innahu min al azamu baadu bépp taalibe bu ma yaakaar wéeru ci man dana texata suñ borom dana ko sori lor sunu borom sunu nag aaral ko Tuuba mu nekk wéeruwaay di kaaraage ci lépp lu ñuy ragal mu nekk capitalu gindee ak soobu jëm ci yoonu yàlla wa daara ixlaasin wa shidqin wa wara wa daara sunnatin wa man min badaa waj'alhu ya rabbi ahaba maskani fii ardina laka walil maaxistani mu ñaan suñu borom mu defal ko ko muy dëkk bi mu gën a bëgg ci àdduna mu nekk dëkk boo xam ne dii su fa tux mboolem loolu islaam ter suñu borom musal na leen ci wal taxmi daariya an il fujuri wal fisqi wal baatili fi duhuri muy dëkk boo xam ne fu mu àgg cooba rek taalibe yi moo ko fa yóbbu ak seenu njàmbaar amul ñuy geref amul ay manifestation ñëpp kàddu Serigne Touba la ñuy dugli te loolu amul fenn ci àdduna amul fenn ci taarix kon bu Serigne Touba waxee ne ilay qaadallaahu maa lam yakuni wala yakun abadan li mumkinin lenn la ci lool kon foofu nag lañuy jeexale di soññ nag bu baax li nga xam ne ci lañuy jeexale mooy li nga xam ne sëriñ bi santaane na ko muy ay liggéey yo liggéeyal ndax moom kat day jëmm joo xam ne ni ko moo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waxe léegi dalal na xelum ñëpp ndax taxawaayam ndax ko agsi ci moom ku ne da xam ne yàlla suñ borom rek ni moo ne ci moom ku dëddu àdduna daray àdduna ñor ko yàlla rek ko ñor ak jim Sëriñ mu wax ma nag ne ma li fii mi ngi nekk ci kaw àdduna yitteem jëpp ci liggéey Sëriñ Tuubaa la ko jëmee moo tax nag nekk nga xam ne ñi fi mas a nekkee Sëriñ Tuubaa ñëpp ni lañ ko defee yoon woo rek la jaar tàmbale ko ci cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci cheikh Mouhamadou Fadil ba ci cheikh Abdoul Ahad ba ci cheikh Abdoul Khadir ba ci cheikh Salihu Mbacké ba ci cheikh Mouhamadou Lawine Baara Mbacké noonu rek la la fas yéenee nag nañ ko tàmbaloon ko agsi ku ne la nga xam mooy sa yitte ji jiitu mooy fexe ba def fi loo xam ne kenn ba adduna kenn du ko fàtte wa fi saalika falyatanafasil mutanafisun moo tax nag ci loolu ci la fas ne tàmbali ay liggéey yu am solo yoo xam ne am na ci yoo xam ne tàmbali na ko benn bi mooy ci kër Serigne Touba gi nga xam ne mi ngi ko doon def ci Daaru Manaan liggéey ba sori na def na ci xaalis bu bari ak yeneen liggéey yi nga xam ne tàmbali na ko ca jumaay Seexul Xadim ji nga xam ne tàmbali na ko ci Ndakaaru ba ñëpp yëg nañ lam ca def ba ca doole ko tam mooy liggéey bii nga xam ne nag mooy bi ku ci gën a ñor ndax mooy jumaay Serigne Touba yi ndax xam na ne jumaa ji mooy ndinkaan li nga xam moo la Sëriñ Tuubaa kon nag nee na amatul jënd yitte jumay jumaa ji nee na kon nag mi ngi koy yëgal ñëpp di ko yëgal taalibe yëpp di ko yëgal na ñu mu bokkal Sëriñ di ko yëgal mboolem mbokk yi di ko yëgal mboolem cheikh sëpp di ko yëgal taalibe Sëriñ Tuubaa yi wax na ne itam ne na ko Cheikhul Xadim santaane woon ci njëriñ wax ne taalibe bu ne nanga joxe lu mat ñaar fukk ak juróom-ñett moom itam mii ngi barkeelu ci kàddu yooyu wax na taalibe bu ne bu néew bi néew na nga joxe lu ma téeméeri dërëm ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne fas na yéene tàmbali ko ba mu àgg ñu koy ñaan ba lépp àgg sottee ci kanamam ba mu ubbi ko jiitewaat ko comme ni ko kilifaam yi defoon kon nag loolu mooy yitte ji nga xam ne sëriñ bi waxoon na ñu ngi koy soññi taalibe yëpp di xam la nag ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom moom rek mooy li am njariñ ci àdduna ak alaaxira ndax sëriñ bi waxoon na ne ku ma defal loo man ma defal la loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la lu kon nag liggéey bii moom wax na ne ku ci yëkkati ko da nga yëkkati ko bu faw loolu rek mooy yitteem ji nga xam ne mi ngi ko soññi taali bi yëpp leen sant ci li waaye di ci soññ ñëpp di ci soññi taali bi yëpp ak uh, ñëpp nga xam ne diggale tere képp la la seq ñoom di ñaanal ñëpp itam ñu tàbbi ci li Serigne Touba ñaanoon suñu borom ne ko na nga faj aajo ñëpp ñi nga xam ne sax nañ ci déma liggéey te defal la leen ay yomb-yomb ba lu ñu bëgg ñu am ko ndax xam na ne bu wootee liggéey Sëriñ Tuubaa rek xéewal yëpp dana daal sotti ko kon nag ñëpp seenam xel dal tañ rafet njort te xam ne jàmm rekk fi am xéewal rekk fi am waq di waqdi xawaaija lasina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu